mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ci yorante bi ñoo ngi leen nuyu ci jotaay bi nga xam ne moom leen tuddee mbir mën naa fi ngeen rajab baaxoo ci ànd ak yéen ci weeru rajab di ci fàttaliku dundu Cheikh Mamadou Fadil tey nag euh, comme ni ñu ko baaxoo waxee rek di ci ànd ak ci ay tomb yu wuute tey nag ñu dalal ci borom borom xam-xam bu mag di sëriñ Abou Mbacke mom serigne basirou mor sëriñ Abo di borom xam-xam ya, di ku ñu xam ci dëkk bi ak ci réew mi yëpp ñu am nak mbégte lool di toog ak mom di di di waxtaan di yalla suñu borom da dogal mu nekk suñu soppé di nekk ko xamni jambar lo ci liggéeyu serigne bi ñu ko ñaanal suñu borom yagal ko fi lool ta and ak wër ba lim ci bëgg lepp mu am ko ci te ngërëmal sëriñ bi lim ñu bëgg jangatal tay tey moy mooy xasiid ak sëñ Fallou kooku mu tuddé mahabbatu shaykhi fi sirdin wa ihlanin adira fadaila fi sirdin wa ihlaanin xasiid gog nga xamné ne tu Tuuba fallu mom moko def ko def jangatal jàngatal gi bu noppé nag toftal ci e, ngeenel yoy nga xamné ne fallu mi ngi koy wax ci ngëneel ci ci ne bëgg gi defal na euh ko ko indil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 يا قائدا لي منافع الرجب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جرجف شاه محمد الفاضل دي سيرين غالاس بامبا مانغي لاي ديلو نويو ديلا نويو وات ديلا زيار لين دوكيل تي ويرو ماغ وينا دوغو اك بيس ماغ بي نو جيم دي زياره دي سي زياره بوكي جولي دي ييبك بوكي طالبي ييب bi bisub lislaam bépp la ndax guddi kasu rajab ci la ñaareelu ponk ci lislaam wàcc muy julli waaye ci la ñaareelu xalifa sëñ Tuuba feeñ mu Cheikh Mahamadul Fadil kon guddi gu lislaam jullit yëpp war di màggal di ci sant yàlla la ndax la la mu andi woon ci xéewal sëñ Tuuba junj ko ca mawaaxibu قد جاء بمايري لأهل خيري وباب الضير أهل شقاي كان موي موي قدك خيول شيخ محمد الفاضل الفانتنك دي جنن خيول أه، تلولو بروم إروا ويرل نكو سنج مدلمين ويرل نني سنج فالو جلا فاني ndax daf ne ca irwa akhbarani shaykhuna wala khalifatu Cheikh Mouhamadul Fadil sëñ Fallou sunu sëriñ di ñaareelu xalifa bi sëñ Touba nee na ma nee na ma sëñ Modou daa feeñ guddig ajjuma fukk ak benn ci tamxarit wasas ca Daaru Salaam bañ demee ba ca rajaboo ca wa fi laylati rajab assaabeeti assaabeati wa ashrina minhu walida Cheikhuna Mouhamadul Fadil bañ demee ba ca kazu rajaboo ca rajaboo guddig ñaar fukk ak juróom-ñaar ya sëñ Fallu feeñ mu ne seen diggante ñu magante juróom-benn weer mooy Cheikh mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha loolu doonoon kon wasach 1306 dëpp woon ak mars 1889 rajab boobu sëñ Fallu feeña nag sëñ Tuubaa waxoon na ca xasida ak Nuuru Daarayni ne yàlla sunu borom nanga ma seereel ci weeru rajab bi rajabul fard yow mi ma ci may la la gën a yéeme la gën a kawe ci lu ñuy yéem yaa ma ko may ci rajab am na lu muy junj kon la nga may seeral mooy la nag ma seeral ne gërëm naa la lool gërëm naa yonente bi lool nag ma seeral ne jaamu sama borom dong laa doonum laay doon ba faw di liggéeykatab yonente bi sallallahu alayhi wa sallam washhad li allahumma fil fardi rajab yaa man yaquudu li bihi yaa man yaquudu li bihi ala rajab bi annani عنك رضيت جدا وعن شفيع قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم loolu wax na ko ca xasida ak Nuuru Daarayni kon muy weer wu màgg ndokkeel yeeg ziyaare yeeg yëpp noo ngi ci jiital kilifa gu mag gi di Cheikh Mamadou Muntaqa waaye di ci ziyaare bu baax ak ndokkeel njabootu Sëñ Fallu gépp tàmbalee ko ci Cheikh Abou Baraka ak mboolem ay rakam goor ak jigen ak sëti serigne fallu yep nak te noo ngi ci seen bir diko tak ci sa loxo nak serigne serigne Galas di nuyu bu baax ak wa al alxadimiya serigne bakay ak serigne mamour ak di nuyu ak ndokkeel bokk yi top yep jere jef kon xam naa ni mu dugg ci bir jotaay bi rek ci xasida gi kon xasi gi seigne Fallou gi mahabbatu sayxi nga am ni yakar na li ci wax ni bëgg seigne Touba ak ngëneel yi ko indil kon luñ ci mën a jere jërëjëf seigne Fallou seigne Fallou radiyallahu taala anhu leppum seigne bi la leppum guddi gi xam nga sax moko ko wona woon bopum màggalal wax na da ci sante yalla mi ko sak jaarale ko ci seigne Touba mu liggéeyal ko ba am ngërëmam am lepp da ko wat ci seigne bi kon guddi guddi sant yàlla la ci boole gi mu ko booleeg seigne touba ak li mu sekk ak mom qasida gi daaj bi basiyat la bahru basiyat ci la ko seigne Fàllu waye muy innal basita ladayhi yabsutu al amal مستفعل فاعل مستفعل فاعل موي مستفعل فاعل مستفعل فاعل بومي ñeenti yoon loolu mooy wasnul basit ci la ko sëñ sëñ Fàllu bind mu tàmbale ko mahabbatu shaykhi fi sirrin wa i'lani ajrat fadaila fi sirrin wa i'lani bëgg sëriñ bi di sëñ tuba bëgg ko ci biir ak ci biti andina ay ngëneel ngëneeli biir ak ngëneeli biti bëgg bu dëggoo day doon bëggug biir ak biti as sadq fi mahabbati shaykhi gi tuba Tuubaa waxoon boole ko ci melaw mourid sadiq bëgg biir akug biti lay doon lool nak bu dëggoo faawu ka nga bëgg nga top ko mënta ñàkk faawu nga top ko ndax do bëgg lu ko nakari kon lam bëgg rek ca nga koy topp loolu mooy dëggal gi alquran nee qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibkumullah mu fekke bëgg ngeen bëgg yalla waxal yonante bi waxal jullit ñi leen bëgg ngeen bëgg yalla bu fekke dëgg la ci yeen top leen yalla topulen mala moy topulen yàlla ndax ma yuti rasula faqad data alla kon bëgg munta ànd ak munta ànd ak ñaka top topp bëgg bu deggo rek da nga top ka nga bëgg motax imam Shafii radiyallahu anhu wax ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hada muxaalun fi lqiyaasi badi da ngay wote ne bëgg nga yàlla ba nopi ya nga feñal sa bëgg yàlla ba nopi diko moy ne lolu yéenuwul maanaa ينوي المعنى ينوي المعنى لو كنت حبك صادقا لأطاعته إن المحب لمن يحب مطيع woote ngi wane woote ne da ngaa bëgg yàlla te jullit yëpp ay woote loolu mu ne ko bu doon dëgg da nga ko topp ndax ku sopp nit da nga koy topp da nga koy topp ndax doo bëgg lu ko lu ko naqar yi ne sun borom waxtu wu ne mi ngi lay joxe xéewal ngay wan gannaaw xéewale bañ koo sant ndax sant yàlla mooy topp yàlla ci sant la bokk معطى في كل يوم يبتديك بنعمة من هو أنت للشكر ذاك مضيع ما هو شافعي ما هو وخلوله بعدين ما ملصق أنت بعيد الجل يا واحد برهم جقص إذا جلانكو دقق الجمال يلر عند الجمال لما بقول لب كنك فلا بد من شكر منتجك مصدر نفيت الأذى عني ولي سقط مطلبي فلا بد من شكر وذكر وتجويد كن لولو ci can ci cant la bokk Cheikh Amadou Fadal kon dafa dëggal bëgg gi bëgg sëñ Tuubaa ci topp sëñ Tuubaa lépp luy bëggug sëriñ bi mosu koo génn doy na ca sëkk misaal mbirum jumaa ji liggéey bi jumaa ji liggéey bi jumaa ji nettali na boppam mu ngi ci kaset yi déglu naa ko mu ne boobu Alhaji Kalador Diagne moo ko doon moo ko doon moo doon waxtaan ak moom ci rajo bi rajo bi daf ne bañ bañ tàmbalee jumaa ji na ca carrière ba dafa yónnee wolu dafa yónnee ci sëñ Tuubaa wax ko mu mi ngi ci liggéey bi sëñ bi ko mu ñëw mu ne ko danga ma doon yónnee ay ndaw ak di ma bind bataaxal ci ne danga maa bëgg a liggéeyal liggéey laa ngoog mu jumaa ji na nga ci def loo mën ak loo mënul kuy ñëw na la ci fekk kuy dem na la ci bàyyi ca la loxo saa na ci jumaa ji ànd ko Cheikh Cheikh Moussa jamono bañ ko jëkkee tàmbali ak biñ ko biñ liggéey bi jamono Cheikh Moussa mu ànd ko moom bané Cheikh Moustapha Deme mo agalé ko ba julli ko 1963 jital ko boppam ba 1968 bi mu fi jogé loolu lépp ngir lan top seigne touba xam li mo moo bëggum motax bam aggé mo ne ko ni ko bëggé won mi ngi ni kama kunta ta'mulu ya khadima bihi huni hunita fi an-na'im fa kun fi ni'matin abadan muqima muafa murtadan cheikh al khadimi kon seigne fallo musta génn bëgguk seigne bi ndax cofeel gi سن فال واخ سي قصيدك محبه الشيخي كون حبي له الدهر قد افنى دموعي اذ حبي جميع الورى لا شك انساني وانا انا بغم سن توبا بغ غوي صح جوي نا سي باي رانغو نيم جيخ با اموتو رانغو نيم جوي ген مبغيل غودول بغ سن موتا مو ني بغم صح فاتلو نما مبولم بيندي في مانتوما بغ كين ndax lim bëgg señ touba jéxal na ak ciofelam jéxal rongo ñu muy sotti ngir bëgg loolu loolu la seigne touba séré won ci ak bëggam yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo delo ci qasida nga xam ne moo mag moom it xasida bi da ko woy woon ci baxaru basit néggug seigne fàllu gi muy lillahi rabbil ladhi seigne bi wax na ci bir lu mel ni seigne fàllu wax ci qasida ci diggante ba yonent bi muy mahat mahabbati al mukhtar sayidana hubbil maghaniya wal ahlina wal walada bëgg gi ma bëgg muxtaar yonente bi sallallahu alayhi wasallam farna far bëgg lenn luy nuru alal wala njaboot wala doom wala waa kon momit mbolim bindé mbindeef yi bëgg yonente bi fatlo nako ko farna far na far na na xolam ba mënut bëgg kanen ba lanen señ fa lool rek la la la wax fi kon lool rek lañ ko fayé fi momit mom señ tuwa señ fa lool ak bëggam señ tuwa day feñ ni mu feeñee xas ni mu feeñee ci qasida gi ni lay feeñee ci mbolam ay waxam boy diglu bëgg sëñ Tuubaa da ci feeñ lool waxtaan woo ma lay wax moo doon ko seq ak alxaaji Kalador rahimahullah fekk Kalador di ko laaj booba lay soog a sanc forage bii ci Touba Bogo Touba Bogo forage bees boobu mu ko ciy laaj nag ak dëkk yi mu sanc ndindi la jëkk a sanc mu nekkoon ak gannaaw bi sancaan nga dëkk lu mat juróom-ñaari dëkk yoo xam ne ndindee ci gën a tuuti noonu la Kalador waxe alxaaji Kalador waaye ndindi ci gën a tuuti ci daa mel ne dafa dafa dafa dafa yóbbe xaal sëñ Fallou ndax lan ndax ndindi la sosoon ci ci jamono sëñ Tuubaa ba wax ko ko ci ci ndigalam bu mu ne ko ndindi ci gën a tuuti mu jëlee kàddu la jëkk wax def na ko waaye dëkk yooyu yëpp ak kër yooyu yëpp ak tool yooyu yëpp ndindi ndindi gi mooy cosaan li nga xam ne ma ngi koy bëggul ku koy xeebal ndindi ndax moom la sosoon ci jamono sëñ Tuubaa ak ci ndigalam wax ba ca biir mu ne ko yooyu yëpp ndindi gi laa jóge soos ko sos len ci len juddo won man ko ci len juddo teggol ko ci ngir ndindi rek ngir ndindi ngir rek ndigalul seigne touba la nga xamne kon lolou lip day feñ ci ci ci ci ci ci ci day feñal beugum seigne touba gi fi seere fii lam na eh, eh, bëgg sëñ Tuubaa fàttaloo na ma fatalo na ma beug mbindeef fi yep na nako sax bopam beug seigne touba fàttaloo nako bopam sax mom seigne fallo amna ci waxtani fu mi waxe ba ne man du ma doom ju bëgg a doon baayam du ma taalib bu bëgg a seex di wax ne moom wane du lenn ci sëñ bi loolu ab taalibi ab taalibi rek la dem ba ci biir mu ne du ma ab taalibi sax man sëñ nga xam ne gisatut boppam léegi <laughs> bi mu laa day mel ne am na kon beru na sëñ bi na fee du ma ab sax man sëñ bi laa rek ma xam ne moom ci biir sëñ bi rek la dugg gi kon gisatul boppam dañuy wax fanaaw fanaaw la def ci sëñ Tuubaa mu wax ci xasida yi nag ne lamma biyal xubbu qad amsa ila watanin anhu taxallafa uddaali wa axdaani bëgg gi ma bëgg sëñ Tuubaa nag damaa dem ba yóbbu ma ci barab boo xam ne gisatuma noon gisatuma xarit maag moom dong ñu wéet fa nag léegi nag ñu tàmbalee jànkonte maag moom maag maag cofeel gi fa dalla yasrauni tawran wa asrauhu tawran ila an badali baadu ixwaani ñuy jànkonte léeg-léeg ma nërmeel ko léeg-léeg mu nërmeel ma maag cofeel gi man ne dañu xeex maag moom loolu waxiinu cofeel gu tar la sëñ Tuubaa da nga koy gis muy waxee noonu ci biir xasida yi da ngay gis mu naan wa shawqu yëkk wii nii cofeel gaa ngi may paase mi ngi may bëgg a rey ak wal xob yoddu nii nii yu mel noonu loolu lu mel noonu rek la sëñ Fallu waxee nee na may jànkoonteeg moom ci noonu di xeex ak moom léeg-léeg ma gaña léeg-léeg mu gaña ma ba lenn ci bokk yi kenn ci bokk yi ma dajewaat ak moom ma laaj ko fa qultu maa baalu mrin maa baalu mar in kaada yaqtuluhu shawqun wa li qaala mahlan wayka aani nee na ma ko waaw yow loo xam ci koo xam ne ak cofeel mi ngi koy bëgg a rey ak cofeel mi ngi koy xaw a rey cofeel loo xam ci moom luy pexe mu def ko nee na mbokk mu mu ne ma ah, tee ngaa tee ngaa def ndànk te bañ a gaañ sa bopp kon defal ndànk ci cofeel gii te bañ gaañ sa bopp nee na ma ne ko in kaana shawqiya ne ko ma ma fa qultu dafa ne fa qultu kalla fa qultu kalla fa min xarajin in kaana shawqi fi in kaana shawqiya fi cheykhin lahu shaani nee na ma ne ko déedéet mooy def ndànk ndax cofeel gi lum mu mën a jànkonte ak man it du ma wàññi dara ndax lan cofeel gi sëñ Tuubaa mi ma ko ëmbal sama lépp a ngi ci loxoom kon cofeel munu ma lor ci mom tàmbali nak di melal melaw seigne touba nak ba nga xamne ya yayoo na cofeel gi mu tàmbali ci xasse gi di melal seigne touba o melom shaykhun sharifun arifun bari'un adibun nadbun ya'um nadahu kull insan ne moy sëriñ bi nga xamne sharif la sharif la bo dal ci irwa seigne mat lay nga nan wa shaykhu sharifun umman wa aba surtout bu yonent bi la waye loolu moy zahir melaw biiru it melaw sharif la Melo biir wi muy melo yu bax ya nekkon ci yonent bi rek motax señ mbir la meen tek ci naan ñom seenug sharaf buñ ko bu ko kenn waxuto nit seenu melo rek deggal na lolu kon lolu kon melo biir ak biti la bolé ne tuwa ku am solo ku fete kaw ci lepp waye ku bari gen sang bo xamne dal daal ak cangam ak mana joxe joxeem ak tabam matale na mbolim nit ñi señ tuwa ak baxam daj na aduna daj na ñepp dañ na ñëpp jullit ñi waxaale mu leen waaye ba ci ñi dul jullit sax irham a la waraajam waxoon kon ak mbaaxam daj na daj na ñëpp yaa maalikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jami la wara yow mi moom nguur gi te jombanteeg di fayonte yërëmal mbindeef yëpp waaw di di di layal mbindeef yëpp naan leen naan ko yaa man jaddahum badaa yow mi nga xam ne seen maam yaa ko sos koo sos maamam doomu romam <laughs> kon kon yërëm leen melo yooyu sëñ Fallou jox sëñ sëñ sëñ Touba am na ko ñu wax Cheikh Baba Hamdi ci waa Gànnaar melo yooyu la joxoon sëñ bi Abdul Qadir kum layli yi da ko laajoon ne ko loo xam ci sëñ bi siyaara ji ko mbiram moom sëñ Touba mu ne ko xam naa xam naa ci sëñ Touba ñetti mbir yi xam naa ne boroom xam-xam la xam naa ne boroomi teggin la xam naa ne waliyu la ab naar mooy wax naar du gaaw a séere yooyu mu ne ko bu dee xam-xam bi wax na ma moom waxtaan na moom ci ay masail yu bari yoo xam ne bari na ci boroom xam-xam yoo xam dañ cay daanu dañ caa daanu te moom lam cay wax lu wér lay doon mooy doon sawab kon boroom xam-xam la mu ne ko bu dee wilaaya gi nag am naa dalaa'il yaqiiniya ci ne wàlli la wóor na mu ne Sëñ Tuubaa wàlli la nee naa la naar bu bu saxal wilaaya bokkut ak wolof bu saxal wilaaya ñoom ci ay wii rek dañ koy teg na ko waaye li gën a yéeme loolu lépp nag mooy teggin yi mu àndal nga xam ne kenn gisatu ko ci jamono ji mu ne ko xam-xam beeg wilaaya yi la leen gën a yéem mooy teggin yi mu ko booleel moom sëñ Tuubaa nga xam ne teggin kenn gisatu ko gisatu ko ci jamono yi sëñ Fallu teg ci biir xasida mahabatu cheikhi mazala baarida di kufrin wa aachiqa di birrin ataahu ila kullin bi ihsaani nee na sëñ Tuubaa buy bëgg day bëgg ngir yàlla buy bañ day bañ ngir yàlla day bañ yéefar ngir kéefar ga bëgg jullit bi ngir njullit gi ñoom ñëpp nag njëkk lay saq ñoom ndax yàlla rek lay xool ci seen jëmm waaye xoolul seen i melo moom la sëñ Tuubaa waxaloon boppam xubbi fillaahi wa bughdi fiihi lii aw salaama kuntu astafi sama bañ bëgg ci yàlla ak sama bañ ci yàlla lu ma bëgg ñoo ma ko andil du ma bëgg ngir sama bakkan wala ngir lenn dum bëgg bañ nit ki wala ma koy bëgg ngir lennam nam la la ma jàpp ci mom ci yalla rek lay bëgg ci lay bëgge ci lay bañe mu tek ci naam fa aqlamuhu usdun li hitanuhu al lbadlu lil qasi wal dani neena na sëñ khalimam yi danaka mo doon gaynde gaynde la ma doon gaynde guy sodd guy song ay nonam guy song ay nonam manam sëñ bi qasayid yi mu doon bind qasayid jihadiyyi na jees yi doon def ca noon ya ni la xalima gi doon def ca noon ya waxal na ko boppam am na fu muy wax ne law annani lama atrukil kitaaba mujahidan biha mujahidan biha dawal itaaba lamaata bil waaye kullu kaafiri in lam yakunu lil ilaahi alxaafiri nee na bind bi ma doon bind ci xasida jihaad yi ca noonee bu ma ko bàyyi wutoon ñoom ñëpp ay mujj faatu ci mbas ñoom ñëpp te xalimaam doo nga leen di faat ndax moo doon jihaad yi mu ne buñ tuubutoon ñepp ñëppay faatu ku ci tuubut da nga dem ba alkumaana waye maa mujj rek jéggel leen ngir yalla lakin afatu an jami'an nas li wajhi rabbin muhlikin khannasi kon motax mo ne khalimam waye itam non la amé won jariñ nak ci ku jégué ku sori seigne touba leppam jariñ la won kon mi ngi mi ngi tag seigne touba ci tabé ci tabé ci am jariñ gis nga Cheikh Sidiya ba itam yu am solo yoy mu don séré tabé ak sëñ ak ni nit ñi di warak كأطراف الأسنة تغتلي به ريح عيس فقفرا أرضه كسمائه نحن سنت وعواري نجدا نجبي من دوي ملا أخي جوي ساني نجي جدلة نون لنجدا جدلة دوار شيء قلم قلم نيوم نود سكر سنت نون نون لا تا يا أم تا يا أمونا إلى الحاج غير مناغص على ثقة إن أصبحوا بفنائه نحن نيوم نيب دام لين يكتي مي آجو لين يكتي te wóor na leen ne seen aajo ji leen yëkkati bu ñu àggee ci sëñ Tuubaa bu ñu duggee këram rek aajo bi faju ida maxtawat yowman qanaatira kafuhu taqassamaha al aafuuna waqta xtiwaayihi nee na sëñ Tuubaa saa bu alal duggee tànqam lii loxoom ñaay xaaraan ña ngay toog di xaar fu mu duggee loxoom rek ñu daal di koy séddoo fa mu duggee loxoom waqta xtiwaayihi duñ xaar ñaay xaaraan mooy ku ñëw di xaar nga may ko Cheikh Sidiya loolu la loolu la dëggale waxee sëñ Fàllu ji muy seere tabuk sëñ Tuubaa fa saaxirul baxari radbun laa maqarra bihi ba tey ci xasida sëñ Fàllu yi wa manzilu cheikhi rahbun duuna buhtaani muy wane muy misaale tefes ni muy tooyee ak ndox mu koy misaale kër sëñ Tuubaa ni muy mel kër sëñ Tuubaa lu mel noonu cheikh machar yi waxoon na ko ca xasida ga tarannaasa afwaajan ala baabi daarihi kamakkata yowmal xajjil akbari lil amal nee na sëñ Tuubaa buntu këram daa meloon na ajug Makka nañuy buuxantee ca Makka ci aj gi noonu la ñuy buuxantee ci buntu kër sëñ Tuubaa noonu la noonu la meloon mu ne ki may wax nag kan la sëñ fàllu nag ci xasida ki may wax kan la aani bi daaka al Mustafa wazari salla alayhi ilahi kulla azmani ki ma ki ma junj ci loolu ma jàll lépp nag mooy al Mustafa liggéeykatu katub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam salla alayhi ilahi day dal ci yonente bi sëñ Tuubaa mi nga xam ne mooy sama wéeruwaay moom lay wax liggéeykatu liggéeykatu yonent bi yonent bi yàlla na yàlla dolli ci mu teraanga jamono ju ne maa salaami bi kulli l aali wal xunafa ay saxbahu ay saxbihi ahla ridwanin wa gufraani yàlla dolli ko teraanga ko musal ci mbooleem ñooñam ñooñam mooy ay bokkam ya ko gëmoon te gëm ko maanaam ya ko ya bokkoon ak moom deret te gëm ko ñooñu mooy ñoon ñi saxaaba yi mooy képp ku gis yonent bi te gëm ko donte benn yoon nga ko gis gis nga ko te gëm ko te faatu ci ngëm ga kooku ku ku mën a doon rek kooku la ñuy boole ci saxaaba yi ci saxaaba yi mën na ñoom ñooñu nag ñooy ñooy ngërëm ñu am ngërëmul yàlla kum ci gërëm yàlla na leen ko yàlla dolli mu ne ñooñu bu mu tujjee yonante bi mu teg ca ñooñu kon xasida gi sañ Fallou mu ngi ci feeñal bëgg ak bëggam sëriñ bi ak ni mu wéeroo ci moom. léegi nag xam ne dama lay joxaat kàddu gi bu ñëwee ci lam waxoon ne ajarat fadaila bëgg sëñ Tuubaa اندينا اي غنيل بيرك بيتي كون لولو موي ثمرات ثمرات المحبه كون مانيتو تيوفيل جي لان لا كون فضائل يولا كون مو جوخال لا ني دوغ نا كون سي فضائل ظاهر يا غي باط ديريف سي هو جانغدي امنا امنا سولو لول ياكنا ني كو ديغلو كو موسا جانغ خاسي ديغ بو ديغلو كادو يي دي نتي امار بين بين بو ياس تا ياكنا ني سا خول دينا توي سي غنا بëgg غنا بëgg سيغ بي xamni ki di bindi te bëgg na bëgg Sëriñ tuba yi foko ko toll foo ko takk wees na kon xam naa kon dañuy delluwaat ci njëlbeenu qasida gi manam bëgg gi mi wone ci ci Sëriñ tuba yeen meññit la ko jural manam yeen ngëneel la ko indil mi ni ne di lay ko séddale ci ñaar moy mooy ngëneelu biir ak ngëneelu biti bismillah jërëjëf sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Fallou kon lam waxoon mooy ajrat fadaila mahabatu cheikh fi sirrin wa ilaani ajrat fadaila fii sirrin wa i'laani bëgg sëñ Tuubaa ci biir ak bi ci day day indi ngëneel ci biir ak ci biti loolu nag ni bëggam sëñ Tuubaa feeña moom sëñ Fallu bëggug biir ak biti wax na ko jëfe ko ni ma ko misaala léegi noonu la ngëneeli li bëgg sëñ Tuubaa di jur noonu la feeñ ci sëñ Fallu biir ak ci biti kon dëggal na boppam ngëneeli bit yi dama koy dama koy misaale jikko yi jikko yi sëñ Fallou yi nekkoon ci moom te loolu it di lu am solo bokk yëpp war koo mën a def bu yóbbal jamono yi ñu toll ci fan yi def ko bu yóbbal di ko roy donte kenn mënta seen pëndam waaye sëñ Saalum daan wax rek roy ku baax boo mënta àgg ci moom it danga raw say moroom yow mi ko fo ngëneeli biir yi nag dama koy misaale ak yenn karamaat yi nga xam ne moom ñu bari xam nañ ko ci sëñ Fallou bu dee ngëneeli kaw yi maanaa jikko yi sëñ Fallou lépp lu ñuy nawe nit lépp lu ñuy nawe nit rek mu ngi ci sëñ Fallou mënees na ko koo lépp lu ñuy nawee nit bu dee fi mu bokk doomi soxna bokk na ci lañ leen di gën a nawe mooy xam-xam te ndaye xam-xam mooy alquran alquran sëñ Fallou def na ci loo xam ne kuñ ci naw rek mën nañ la tolloo ak moom wala mu féetale ci kaw doy na ci sëkk misaal kaamil bu mbàkke bi ñuy donnante banaw bàlla di ko donnante kaamil boobu nga xam ne ku bokk ci surtout ci mam balla ay rek ku ci mag mooy moom moo yor kaamil bi ba fa jógee ñu jox ko kaneen sëñ Tuubaa am na jamono yu mu ko yore biñ demee ba di ko jële ci moom nag di ko jële ci moom sëñ waa ni meloon ci alxuraan alors jox alxuraan ne ci moom di génn ci moom mu daal ko ndax foofa ku mag sax yaa koy moom jóge fi mu waaye dañoo dem ba ci biir ñu wane ne xëy na dañ cee jum am na am na ko ne ko war a yor mm-hmm. xanaa gannaaw Maam Mor Jaara lañ ko ko jox mm-hmm. waaye gannaaw bi ci biir ñu dem ba ne mel na ne am na ku ko mag naa mbir mi saaxir rek la mm-hmm. ñu bëgg koo jël nag jox kooka sëñ bi nag ne faaw mu wut bu wutu kaamil bi tànn fukki nit ak ñaar ne leen nañ ma bindal kenn ku ne na bindub kaamil bu ko defee mu tànn ca bu mën a wutu boobu ndax dootu génn ci loxoom sëñ Fallou bokk ca fukk ak ñaar ya ba mu bindee ba noppi sëñ bi jël kaamil yëpp wax sëñ Fallou ne ko sama borom nee ma naa taqoog sa kaamil bii àdduna ak alaxira <laughs> nga xam ne kon kon sëñ Fallou am na ci alxuraan loo xam ne mën nga ne kenn a ko xam-xam noonu la ca meloon xam-xam Abdullahi Salim naazimal xawaariq moo way xar baax yi sa bi géej géej yooyu dafa tagg sañ Fallu ci xam-xam yarda bihi nnaasu fi ayaamihi xalafan min siiba wayhi musaafihi wa shaanihi nee na ci wàllu xam-xamu xam-xam rawatina naxwu grammaire arabe waa jamonoom ñëpp dañoo giseen ne man dañoo gisoon ne mën naa wootu siiba wayhi siiba wayhi ku kawe woon ci xam-xamu naxwu ku am xam-xamu nax war a géeju ci dañ naan la si boo yi zamani lañ lay tuddee si boo yi jamonoom mu ne noonu la waa jamonoom gisee woon sëñ Fallou gis nga sëñ Talla Mbaye rahimahullah borom Muhammad boobu nettali boobu bindoon laajal sëñ Fallou tàmbalee ko aktubu ilayka hadihi risalata hadihi risalata sëñ Fallou bu mu xoolee kayit yi xool ne ko hadihi risalati aktubu ilayka déet na aktubu ilayka hadihi risalati moom maas ko maas ko maas ko ci suuf sëñ Fallou xool ne ko haadihi risalata risalata daal koy andil bayit wa bayit wa jàngale loolu wa inata kasmun muarrafun bi al baada al isharati fanaatun aw badal waaw baada isharatin fanaatun aw badal ne ko ismun bu ñëwee nekk maarifa gannaaw ismu ishaara day topp ismu maanaam naat lay doon wala badal lay doon kon lañ ko war a maas lañ koy maas te xam nga ne fee mafool la mhm. mafool mafool ak tub ilayka nga xam ne sama noonu la noonu meloon ci fànn yëpp fànnuk sarf sax noonu la ci meloon laamirul na na ma ba la koy jàng laamirul afaal téere bi jàngale sarf mhm. neen dafa ñëw ci sëñ Fallou boobu mbooloo maa ngi toog mhm. mu laaj ko téere bi mu jàng ma wax ko mu laaj ko buntu bi mu ne ko buntu sàngam nee na seigne fallo ngi nuyoo mbolo mi di joxe loxo waaye mi ngi tari mi ngi tari fofa mi ngi tari buntu boobu di tari di nuyoo di dem nga ne kon xam-xam bi ak mokkal gi yeme won na Abdoulahi Salim wana ne yewul ci nahwu dong waye xam xam mu fiqh tasawuf ak lépp non la ci melam motax tax mu ne ko fiqh bi malik ak shafi'i ak ay mar arbaa yoy nga cay tollal tasawuf junay ma fent yoon wi mom nga cay tollal motax tax mu ne ko malikin wal imaami shafii wa abi xanifatin xanifatin wal junaydi saalikitihi ñoon ngay tollool ci ci ci kon ci wàllu wàllu googu sëñ Fallou luñ cay nawee nit rek àgg na ca ci wàllu jëf lu ñuy nawee nit ci jëf sëñ Fallou jëf na ko loolu mu defe naa ñëpp teg nañ ci seen bët jërul ñuy sori mm-hmm. tuubaa gi rek bu ñu fi bu ak li mu jëf ci nit ñi ñaata nit ñoo ñoo ñoo ñoo la sëñ Fallou xettali tey jox leen ay ay liggéeyukaay dimbali leen ba fi mu ne nii ñu cay dund teraanga seen i jaboot di ci dund ñaata ñaata la génn ñu jàngi jàngi ba am xam-xam ñëw di di dundal xam-xam ba di ca tàdd seeni njaboot di ca tedd ñaata jumaa ji doy na misaal ci jëf jumaa ji doy na misaal sëkk ci jëf ba muy noppi mu koy julli Afrique sontu ci soowu jant bii jumaa ju ne mel toll ne amu fi màggalu Tuubaa gii mu woote gis nga ko ni toll Afrique soowu jant xew xew diine bu ñu toll amu fi kon bu dee ci jëf kenn gënta rëy Sëñ Fallu jëf jëf bu dee ci jikko yi itam yeneen jikko yi Sëñ Fallu ku mënoonu muñ la ba tey ñu ngi ci ngëneel yi ku bëgg Sëñ Tuubaa andil donte ak njàmbaarug boppam dajay feeñ nag ndax faaw da ngay bëgg suñu borom defal la tawfiq mën a muñ te yonente bi ne woon na muñ mooy genn wàllu ngëm ngëm ku mënoon a muñ la ndax daa wax ne muñ suuf rek laa ciy def royukaay suuf xam nga ne suuf lu nee ngi ci kawam lu nee ngi ci biir ku nee ngi dox ci kaw suuf lu nee ngi ci biir suuf lu baax ak lu yées waaye kenn déggut li sëñ bay jaxate wax ca way wa ku baax ak ku bon ñëpp ngay ñëpp a ngiy dox ci kaw di def yiw di def ay mu taqoo xeram ñu ngi def ci biiram lu bax ak lu bon te deggo mun <laughs> a as këyit mbaate kon suf ku mana ku mana muñ la señ fallu nan la yu bari fitna yu bari ci nit ñi yoo xam ne hari. lay nattali histoire yi da ngay def ne yenuul wul yenuul mana wul maanaa toll ne señ fallu nit di jëflante ak mom ni ta lu wër la lepp mu muñ ko mu muñ ko fitnay àdduna mu jànkonte nag lu bari jànkonte nag lu mu bëgg mënu koo am ba ni ko yàlla teggee muy xalifa bu sëñ Tuubaa coono yëpp jeex teraanga yi ñëw waaye boobu yi dafa wéyal dafa wéyal muñ nga muñ ci xéewal lu moo gën a jafe ñu ngi nattali mu waxoon alxaaji sëñ bu sa ilimaan mbokkam rahimahullah ba mu toogee xalifa ne ko muñ nañu ba agsi fii ba am juróom benn fukki at ne ko nañ nañ nañ nañ teraanga ji nañ ko muñ nañ ko waat buñ ko mos a nañ ko waat daal ko jox misaal mi ngi mel na ku woor xëy di gasub teen di wut ndox ba tisbaar mu am ndox na muñ rek ba ba dog jot kon nu teraak manet moo na ko na loolu nag moom la sëñ Tuubaa waxoon ni góor dëgg mooy ki nga xam ne bu mettee mu muñ bu neexee mu muñ far rajulu rajulu man yasbiru fi baliyatin wa niamin xaytu tafi noonu la sëñ Fallu meloon kon ku mënoon a muñ la ku tabe woon la nag ku tabe gis nga waykat ba Abdullahi Salim moo may wax wa yowma yudkaru fiihi laa sabila ila dikri ibni zaidatin aw xaatimin fiihi nee na bu ñuy waxtaanee tabe ak sëñ Fallu jërut ñuy xalaat maana ibnu zaida ibnu zaida bi mu tudd maana la lañ jublu maanu maanu maanu ibnu zaida ak xaatimu taa yi dañoo tabe woon ba arab yi di leen misaal si tabe tabe lool maana ku tabe woon la dafa am bis kenn ñaan ko ne ko may ma waruwaay may ma waruwaay mu jël jumtukaay yi waruwaay yi amoon yëpp boobu may ko lépp may ko gëléem may ko fas may ko baax la may ko may ko mbaam ne ko bu yàlla sàkkoon waneen waruwaay ma jox la ko waaye yii rek ñoo fi am mel na bu doon jamono ji ku la ñaan waruwaay may ko avion may ko bato may ko oto may ko saxaar <laughs> xeeti waruwaay yëpp may na ko ok foofu tabe yam kooku mooy ma nub nu zaida nee na ko doo moroomam ci tabe ka mooy xaatimu taayi ku siiwoon la ci tabe araab yi di ko joxe misaal xaatim dafa am bis am njëg muy ñëw am kuñ ca jàpp jaam ba ceene ko ci tànkam mu dajeeg xaatim kooku nag sàkku xaatim xattali ko tudd ne ko xattali ma xaatim ne ko def nga musiba de ndax yaa ngi may tudd mënuma laa ñàkk xettali te yoruma lu ma la xettalee ndax yoruma ko te te te te sori naa sama dëkk sama alal ma ci dëkk ba te sori ko te ginnaaw tudd na turam ñaan ko ma xettali ko rek xaatim moom amatul pexe faaw ma xettali ko waaye waaye ne ko waaye na sa xel dal xaatim nu mu def dafa dem ba ka ka ko jàpp jaam ceene ko moom waaj ne dindil ceen gi nga ceene tànkam bi te ceene ma bu ko defee ma yebal ko ci sama dëkk bee ndax da ko da ko dana ko jaay ma ko ci téeméeri gëlëm jaay ma waa ji ci téeméeri gëlëm waaye ginnaaw téeméeri gëlëm yi yoruma ko ma ngi ca dëkk ba léegi tànkam bi nga cee da koy dindi ca ceenama man ma yebal ko ci dëkk mu jër téeméeri gëlëm bu jëwee nga nga bàyyi ma bàyyi ko noonu la def ceene boppam ñu ceene ko mu yebal ko ko mu dem jëli téeméeri gëlëm yi ñëw ñu soog ko dindi xoolal tab googu tab googu waaye ñun ñëpp nag seen tab nee na ko yaa leen yaa leen féete kaw yow sëñ Fallu moo tax mu nekk wa yawma yudkaru fiihi laa sabila ilaa dikri bni zaidatin aw xaatimin fiihi bu ñuy waxtaanee tabeg sëñ Fallu rek soxlawul ñuy jëlee misaal ci maana wala xaatim sëñ Fallu doy na doy na sëñ Maodo Touré mu faas rahimahullah doon na misaal tabeg sëñ Fallu googu fa alfaytuhu bahrayni juudan wa xikmatan yamuuju bi amwaaji nada wa dirayati ba ma fekkee sañ Fallou mu toog dama ko ndekete bañ maam ba mu gisee sëñ Fallou xam ko nee na fekk na ko muy ñaari géej géeju tab ak géeju xam-xam na géej ji sànnee duusam ne la sëñ Fallou di sànnee duus yi xam-xam waaye ni lay sànnee ay may ni duus di sànnee rek noonu la sëñ Fallou du joxe ku tabe woon la boo ko ci misaal ak tabam mas na romb sëñ tiib tiib ji sëñ Bachirou ne la ne na fi jaar nuyu ko soog a jàll. Mhm. tax ko jóg waaye mu romb ko jaar fa. bañ ko sëñ sëñ Bachirou yëkkati téeméeri junni jox ko ko addiya mhm. jamono booba. sëñ Fallou tàggoo ba dugg ci oto bi oto bi cinq place la juróomi nit ci ne. Mhm. ñeent ak moom mu na lii de neex naa séddale. daal di taqi ku ne kenn ku ne mu teq ñaar fukki junni jox la séddale ko noonu ba ci safar bi. xam nga ne ak tab la mën a yem loolu defe naa ne gis ku ne mel yombut. sëñ Bachirou da doon soppeem ni ñu bokkee sëñ Touba ni lañ bokkee woon xol waaw moo koy see ak woon kenn ku kenn ku ne tudde moroomam sama bu soppe kee ne zaaral xabibu kee ne zurtal xabiba zurtul xabiba sëñ Moussa Naayel mi ngi ñuy nettali bu yàggul rek na ngan googu sëñ Fallou gana ji woon tiib googu sëñ Moussa am fa la ko fekk nee na ayu bis sëñ Fallou am na ko fa ayu bis nee na ngan gu rëy rëy goo xam ne kilifa yor yu ñu bari dañoo sëñ Fallou leen yóbbaale woon sëñ mat dem mi tud nako ca ba ci sëñ mat Lamine job Dagana ñom ñep ngan gu rëy rëy rëy ay bes samen nana na ko sëñ ba noppé bu ba bes di ko gunge si gunge na ba ci danaka altub daru salam bi ba biir tuwa non la non la seen wéeru cha cha gis nga qasida googu ma lay junju bayit yoyu sëñ Basiru dane al habib fa marhaban ahlan bihi min sayyidin nadbin karim min nabih ngi koy tag sang bu tabe bu kawe bu baax bu yëkkati koy daraja ديكو دالال جام سيغ فالي نك زرت الحبيب الندبه يا عجبا به من سيد تلف العفات ببابه كان كون نكون تود اب سابي نون نك لا ميرون دومي سيغ توي ييب تا جيك جيكو سي لا نيو جيفلانتي محامله حسنه سي جيكو جو باخ دونغ لا نكوي ماناي واو نيت كي جيكوم سي لا موي واني او دوخينم او دوخينم نو مانا مل رك نون لا جيكو مل ndax jikko du lu lamb daj ko du lu ñuy gis ko kon la koy misal moy doxinu jëm ji jëflanteem ak doxina moy wone la ca bir moy wone jikkoom te jikko moy misal xol na xol mel kon nit ki nu tek mel nu tem mal rek la xolam ne la xolam mel ni la jikkoom mel kon non la meloon ak ñëpp doomi mi señtu way moom danaka da lay defoon ay señtu wa jami yàlla yep sax dafa tënkoon ci wara fi kulli khalqin haqqan man xalaq mbindeef yëpp rek da ca doon sam ak yàlla motax Mouhamad Abdullah al Alawi borom xam-xam bu mag boobu ne sëñ Fallou ku ko gisoon ci ndawam ñaa gisoon ci ndawam ñëpp ngaan nga nañ ne kii bu màggee dana nuru baayam loolu la seere ma qad qaala man ra'ahu fi sibaahu sa yushbihu sa yushbihu cheikh arradi abaahu nee na ña ko gisoon loolu lañ xamoon saxaahu wa nuurahu ljaali zulam wa man yushabihi abaahu fa ma zalam ku ne xamoon ne ak tab ak leeru xar kanam guy wuññee lendam ana ko nuru sëñ Tuubaa sëñ Fallu ko jak rek xar kanam bi li ñuy wax euh, leeru xal kanam ak belli gi danaka sa aajo man na ca fajo la la bi tagge won yonent bi turandom wal wajhu maahil xumami wala ci hil xumami mana yonent bi xar kanamam rek day dindi stress xol ko sëñ Fallu non la kon maknya non noonu lañ ko tagge ci jikko yu bax ba ci jamono ji barki dem rek amna suñ jenn dom Mam Thierno Mbacke la tudd seigne Lamine Mbacke domi Alaaji maam Thierno moy bayam ci mm. setu seigne Bachir itam. Mm. bari demb la demb la sax lama yone gen qasida ci tag seigne Fall. Mm. nga xane mi ngi tole ci jang ma ngay wax ci bir taqiyun. wa sufiyun junaydun li zuhdihi. wa fil badli Ibrahimu. al axayri non la ko tag nga xam yeg yeg ba mag ña di bind ci seigne touba yeg yeg booba rek la gone am. donte xamuñ seigne fall kon lolou la ko yalla defal. waaw mi ngi ko ok sëñ Fallou da woon ko woyof itam nag doon ko woyof lool ak ki mu doon ci askan ki mu doon ci personnalité ki mu doon ci askan moom la Cheikh Ibrahima Diop doon doon wax laqad tanashata min shamsin wa min qamarin fa sirta bahran min al anwaari tasdaxil da ngaa jógee ci dafa mel ne moom la sëñ Moussa Ka di firi rek waxee sëñ sëñ Ibrahima Diop ji ومن سيد موسى كيفير تي قصيدك سنيك مام يا شريف لن غني فلاي مام سنداي جانت سباي وير مرحبا يا دام لول لول موي لي سيد ابراهيم جوب واخ واي ني مو تولو تي ريسبونسابيلتي يا خالف جنرال دي موريت تا جامانوم معنا خلافه باتم معنى الكلمه نيكو سيد فالو دوني danaka don serigne senegal gep ñepp diko deglu andak lepp mo wayef mana andak ñepp woyof gi di feeñ ci jëmmam di feeñ ci kolom di feeñ ci colom ba feeñ ci biir këram mosu fa tabax suñ fallu ay néegi baraag néegi ñax moo fi nekkoon boobu ba mu fi jóge gis nga ne ci néegu ñax la fi jógee la fi bàyyi loolu lépp di wane num num num num gis nga ñu ngi nettali sax ne am na bi Senghor di fi ñëw ñàkk euh, waajtaay wi ci caaxir bi am ñu koy gaaral da ngay wut nag yére yu baax nag yaa ngi bëgg am gan sol ko mun leen baax na ñu dem wuti waajtaay ñëw teg mooy su ngeen rooree ñëw bis ba mu sol lam daa sol daraay rabaram yooyu <laughs> daraay rabal ak léegi sax forog bi du nuróog daraaju nee na bañ kii ba ba dem nag mu dajale leen ña ko doon wax waajal ne leen ku toll fii ma toll ñëpp wut la ñëpp wut la loolu bu la dul waajtaay dara la doy waajtaay <laughs> loolu loolu loolu leen tontu gane li sëñ kenn mënu koo lim lépp loolu euh, gis nga seen téere boobu ngeen génne euh, kitaabu muy téereb Shawaahidu Baadil Afaadil li Manaaqib gis naa lu ëpp ñaar téeméeri nit bind nañ ca saara ci sëñ Fallou ñaar téeméeri nit lu ko ëpp te te mënuñ koo jeexal ba tey waaye dafa mel ne ka ka ca ka ub géew ba nag mooy ki ma tudd léegi sëñ Maodo Touré moom dafa jël sëñ Fallou rek nuróole ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw naa Touba fekk fa sang boo xam ne ba ma ko séenee ci biir murid ya ma toog kenn rek la ma jox mooy a jàngaloon mm-hmm. mooy yonente bi ci biir saxaaba rek la ma nuru ataytu ila Touba fa alfaytu sayyidan yudaahi rasulallahi bayna sahabati kooku defe naa tàgg la ba nuroo ak yonente bi loolu aw tàgg mënu ko weesu falat moo tax sëñ Tuubaa gis nga لم وهن ينتبه لبست ثياب المجد والفضل والغلام وفيك من الاخلاق ما اعجز الكل آه، لينا تي يوتي جيكو يباخ كان امكو لطل نيب وانا كل ذي علم وسعي ورتبة على المصطفى في خلقه الحائز العلوي كان منت منتدب ينتبه تي جيكو جيكو يويو نيكون تي سيني فالو دا فا ملنا موم لا دون دينكاني نيب امي جيكو يويو ديغلونا خطبه Euh, korité korité 1965 mhm. sëñ Fallou ma ngi cay dénkaane nga xam lii na ci moom rek la génne di ko dénk ñëpp bëgg ñu melawoo ko kon jataay yi loolu mooy njariñ li mhm. def na leen maa ngi leen di dag dénk topp yàlla mhm. dara nekku fi lu dul topp yàlla loolu la jiital ne leen te ngeen boole xol yi nag def ko muy benn xol ndax yàlla mi leen bind kenn la kon ni mu doon a kenn na ngeen doon a kenn ñenn ngeen doon a benn yéen it ndax ki leen bind kenn la kon war ngeen mën a doon kenn ne bu kenn yéene mbokkam lu mu yéenewul boppam bu kenn wax ci mbokkam lu mu dul wax ci boppam te ko ne xam na ne lu baax rek la nit di wax ci sa bopp moom nga bëgg ñu la koy waxal mu ne bu kenn jëflanteeg kenn lu mu dul jëflanteeg boppam kenn ku ne da def sa sa moroom ne sa bopp sëñ Fallu ne nañu boole xol yi nañu déggale xol yi te jokkale yéene yi lépp na doon lenn ne bu kenn jëm ci moroomam ay tànkam damm ngir lan ngir la ko jàppal moom wala lam jàpp ne mbokkam mee jàppal na ko kenn ku ne buy jëm ci mbokkam rek na jëm ci moom ci xol bu sell ak njortu rafet loolu la sëñ wala ëmbaloon ñëpp gis nga dooy ñi mbokkal sëñ Tuubaa kenn ku ne rek junj ne la wan na la sëñ Fallou dañ koy nettali sëñ Saliou dañ koy nettali ba tey danga ko waxoon ne ko junj ko ne ko dana fi ne ba doon sëñ Tuubaa sëñ Abdou Lahad ñu ko ñu ko ñëpp dégg nañ ko daanaka ànd naag moom kaala kaala sëñ Fallou rot mu for ko tegaatal ko ci kaw mu ne ko bu jógee fii foofu la jëm si ci moom sëñ Abdou Lahad nga xam te xam na ne moom li fekk mi ngi fi ñoom duñ ko doon kon dafay jógee ñu soog a nekk xalif waaye mu yéene leen ko kon loolu na bu kenn jëm ci moroomam ay tànkam dam mooy di rus wala am lenn lu koy gêné ngir lam jàppal moroomam mi mu jëm wala lam jàppal moroomam mi jàppal kon bu ñëpp yéerante aw yiw rek kenn kuy dem ci sa moroom xol bu sell nga fay demee sëñ Fallu teg ca ne nañu yaatalante lépp li ñuy sàkk ginnaaw lenn la kiñ koy sàkkoo di kenn di kenn kon nañu doon benn <laughs> loolu wax na ngeen di sàkk ci kenn ngeen koy sàkkoo kon yi mën naa doon benn mën naa doon benn teg ca nag aljamaatu rahma moom la teg ca xut booba loolu da koo firi ne aljamaatu mbooloo mu bokk mu bokk yéene mhm. rahma lu ñu song daan ko <laughs> ak lu ñu jëm man ko itam moo tax loolu la firi aljamaatu rahma mu teg ca loolu nag mooy nañ topp yàlla topp ndigalil sëñ Tuubaa mii sunu yaakaar sunu yaakaar jii di sëñ Tuubaa nañ topp ndigalam ndax dañ koo def mu dox sunu digganteeg sunu borom kon sunu borom la rek ci nun noonu la ko waxee yàlla la ci nun rek ndax lu lay jokkale lu ne moo la koy jokkale doo leen lii ngay wutee li nga bëgg daanaka ci gëdd ba nga jox la ngay wut nga koy jox koy jox ku ne xam na ne ku tegoonub seel fii wéer ko ngir bëgg dem ci kaw lu seel gën a dëgër esel bi la nga la ngay ci kaw lu mu gën a dëgër nga xeeb ko day lay sax ko lu ngir moo lay yóbbu ci kaw kon moo na ne noonu rek nañ war a def sëñ Tuubaa ndax moom la yaakaar la yaakaar ci yàlla lépp ci moom lañ ko yaakaare moo ne kon nuñ ko war a joxe joxe gëddaam loolu itam da nga koy déggee ne worma ji ñu war a dolli tuubaa gi sëñ Tuubaa na fi da ko ciy déggee waaw worma juñ ko war a gën a dolli la sëñ bi cër buñ sedd tuubaa moom lañ ko sedd lu ñu xañ tuubaa sëñ Tuubaa lañ ko xañ worma juñ jox tuubaa sëñ Tuubaa lañ ko jox worma juñ xañ tuubaa ci sëñ Tuubaa lay dellu moo tax ngay gis sëñ tax goney Touba bu ñu génnee léeg-léeg ci xew-xewi jamono di bëgg a toppandoo gone yeneen yi am na boo xam ne dafay yéene lu ne jox diggal gone yi dellu leen ca kër ga wormaale ko sëriñ bi noonu la ko waxee wormaale ko sëriñ Touba <laughs> nga xam ne kon lépp ci sëriñ Touba lay del loolu nag lu mat a lu mat a lu mat a bàyyi xel la sëñ lu teg ci lu am solo nañ topp yàlla tey liggéey nag liggéey nag ku bëgg a jariñu na fonk liggéey ku bëggal nit njariñ liggéeyloo ko kon bu eh, yaa ca ay caaral ak ñàkk jom sëñ Fallu sori woon na ko lool boo gisee sanc yi mu dëkk maa dëkk yi mu sanc rek nii nga xam ne jikko yi mu wax mu ne ci moom mu génne ko liggéey bi it noonu la nekkee ci moom ndax gis nga dëkk yi mu sanc ba ba ak jege fukki dëkk daanaka lépp di liggéey kon la tàmbale woon xasida rek moom la ñuy moom la ñuy muy mahabbatu cheikh fi sirrin wa alaani ajarat fadaila fi sirrin wa alaani kon meññentum sopp sëñ Tuubaa li mu andi sëñ mooy nga nee li biir gi biti nga nee li biti yi naan naanaa la mun laa misaale jikko yi hmm. noonu moo ci jaare xarbaax yi nag ak cër tëdda xarbaax day wane cërub yàlla tegtal lay doon xarbaax yi sëñ Fallu mu naa ne ñëpp nañ ko ku jaaxale sax sëñ Fallu sa xel di dem doo noon ku sunu borom wuyu ku sunu borom nangul xesa boobu sëñ daam daraami nattali bu yéeme la sëñ daam daraami jege woon ko lool ak li na ko man mu dafa am gouverneur bu wax Bernard Cordegentil nekkon gouverneur ba wara mana retraité wara da ñibbi na ngir taggu si seigne fallo nee na fallo lam la def rek moy wàcc war diplomatie daf ko yoni mu jëndele ko Ndakaaru ben islo ben big big bu cher boo xam ne juróom benn junni la ko jënde juroom benn junni ci jamono la ko jënde ngir moo maanaam ter terale ko ko bokk ci lim koy terale maanaam nee na ba gouverneur boo ñëwee sëñ bi teral ko lool teraangay ñam yeeg yëpp fa mu doon toogee ci taabal yi añ nag sëñ Fallou ne ko nee ko lu mu bëgg dooni ëllëg ne bind ci big boobu lu mu bëgg a dooni gouverneur bi tontu ko tontul ñàkk yaakaar ne man jeexal na man kon li doon lépp doon naa ko amul lu muy séntoor ci àdduna ma bëggatu pal bëggatu ko séntootu ko ma ne waaye waaye nee nee na waaye mu jël rek ci torsion yi ñu ko tegaloon ci añ bi bind ci ba muy bind sax mi nga ree ree ku ku koo xam ne lii day wax rek day kaf rek waaye séntuwu ko bind ministre bind ambassadeur nee na nee xam naa lii moom dara laa ci du mën a doonati suñ dam daan lan la ko gouverneur

soxna Fatja taawub sañ Touba xam nga amoon na kër njaareem sëñ Touba ko ko wutaloon ne woon nañ ko ko wutal 1912 la joxe dégg lañ ko wutal foo xam ne am na mag moo nettali ne ma soxna Fatja ko nettali mhm. nañ ko wutal foo xam ne ba jumaa jee julli mën da ca ànd mhm. këram moo uuf penc mi féete Saloum am jamono nag jamono sëñ Fallou nag kër ga xaw naa xew a ki aajo defaraat mu yónnee ci sëñ Fallou jël génn kilifa yónnee ko ngir ñu defaral ko kër ga mhm. daal di bind ci këyit aw tur soxna faj ne ko boo demee neel sëñ Fallou kii la bëgg mu taxawul ma kër ga sëñ Fallou bu mu xoolee lettre bi tur woowu mu ko jox daf ne kii moom kii moom nañ ko ci génne hmm. loolu la daal di wax moom kii ne mun kii mu ne nañ ko ko tax nag ko taxawul nañ ko ci génne sëñ Fallou dañ ci waxut dara ba dellu ci boromam sam sëñ moom sëñ Fallou hmm. ba soxna Fat ja dellu ci boromam hmm. kam ne woon moom la bëgg mu taxawal ko ko dellu ci boromam ñoom ñëpp wàccu liggéey nga xam ne kilifa gi soxna Fat ja yónni woon rek moo fi des ba jamonoy sëñ Saliou bi sëñ Saliou nekkee xalifa général des mourides la am pas-pasu defaral soxna Fat ja kër ga yónnee ndaw nag ñuy wooyi kilifa googu yi nga xam ne moom la soxna soxna Fat yi yónnee woon ci ci sëñ Fallou ñu dem këram fekkuñ ko fa waaye koo keroog barabu sëñ Fallou lañ ko fekk lañ ko wooyee ne ko wul sëñ Saliou <laughs> waaw moom moom mi mm-hmm. barabu sëñ Fallou lañ ko fekk nga xam di wane kon ndax ba ba mu nekk kii nañ ko ci génne sëñ Fallou ko caa tegal na danaa demal danaa seet ku mën a booleel la ko demal danaa seet ku ma la booleel sëñ lu jóge fii soxna Fati jóge fii kam ne woon na ko taxaw jóge fii kookee rek des fi kam yónni woon ne ko ne sëñ Fallu ne ko danaa seet ku ma la booleel ba sëñ Saliou ñëw bëgg a defar kër ga yónnee di ko woolu waaw ñoo xam barabu sëñ Fallu lañ ko woyee ci <laughs> kon danaa seet ku ma la ku ma la booleel ji kon dëggal na ko kon noonu la noon la noonu la sëñ Fallu meloon man mii xam naa mbokkum taalib moo xam ne mën naa la ne diw la soxnaam dafa dafa dafa doon def kum am mu tolloo ci fer wala féeragut daanaka dem am na lu ma juróom mënul ko ëpp yoo xam ne am naa ci lu leer ndax am na ci dara nag ci mujj yi mu ñëw barabu sëñ Fall bii ko fi ba koo mu tudde doom ci sëñ Fall ba fi mu ne nii ma nga fa amaan na rak rakk jane fa sëñ Fall la ko tuddewaat <laughs> loolu <laughs> lu ma leer naññ la muy ku ku ku yéeme sëñ Fall ngëneelam yëmut sax ci ña ko fekke wala ñay dem ci barab ba waaye génte gis ko rek génte gis sañ Fallou rek xéewal lay doon waaw gént gis ko rek loolu moom moom man am naa ci lu ma leer nañ gént gis sëñ Fallou rek sunu borom mën na la at ma at moomee nga ko génte nga ca mën nga ca bari xéewal lool loolu moom loolu moom loolu moom am na am na am na at moo xam ne eh, bi ñuy jub kaso rajab bi mu desee ñaari fan rek xamu benn yàlla defal damaa gént gis ko gën a suba ko àjjuma la bi ma xëyee sax ci bis bi am ku ma war a tuddali doom ba may dem laal fas ne bu dee góor sëñ Fallou laa koy tudde ba ma demee muy góor mbokkum taalibe la ma tudd ko sëñ Fallou waaye waaye ni ma la ko waxee at moom ma sant naa ci yàlla lool xam naa ngeen ñaanal ma ma géntaat ko <laughs> euh, kon daal euh, ak ñun ñëpp kon kon daal nga nee ne sëñ kenn mënu koo lim waaye bëgg sëñ Tuubaa defal na ko nga neeli biir biti كين مونو كو جيخال نكو سيني ابراهيم جوم ابراهيم جوم ما شاء الله رحمه الله واخون رك لا ني تدي كين نكو كين مونتا يام اك يو سي غنيل يامنا الخديم الذي يدعى بفضلنا ما نال فضلك لا انثى ولا ذكر يو دومي سيني توبا جي ني يوي سيني فالو سانغنيل يي سي يو كين اموكو دو غور دو جيجن سبقت جيلك في علم وفي ادب وفي فضائل لم تظهر بها فكر بها فكره ne ko jiitu nga sang maas ci xam-xam jiitu leen ci teggin ay nga nag lang ci am moom xel xel daju ko <laughs> xel daju ko bu kenn di ko am kon dal yàlla noonu yàlla taas ci barkeem te defal defal nu xeewal ki te defal nu njëgal defal nu yërmade taas nu ci ngëneelam yu bari yooyu nga xam ne kenn mënu koo jeexal te kenn daba ko ci ci barkeem barkeem sëñ Tuubaa jërëjëf sëñ Mouhamadul Fadil jërëjëf jërëjëf suñ euh, boobu am nañ euh, mbégte bu baax naa doyluñ sax mun sa yoon dañuy dañuy euh, toog déglu rek ndax xam naa yow booy booy waxtaan dañuy sawar a toog di di déglu rawatina sax thème bii nga doon waxtaane ndax yokkaat suñu bëgg ci sëriñ ci sëriñ bi ak suñu pas-pas ci sëriñ bi ndax ni nga ko waxee ci suñu faal rek lépp lépp lu ci am rek ci mbaaxu Sëriñ Tuubaa la ko amee ak ci liggéeyal ko liggéey bu bu dëggu kon yàlla nañu yàlla gën a taas ci seen ci seen barke. Mm-hmm. waxtaan wi li ci doon seen lépp amee nañ ko mm-hmm. amee nañ ko noonu ndax euh, euh, waxtaan nga comme comme nitu yàlla dëgg mm-hmm. ndax euh, weer wi yaakaar naa ni daa fees dell ak ay weeru weeru moo gisa la ci comme ni ko waxee ci ci la julli wàccoon ci la yoonte bi defoon al isra wal kon yaakaar naa weer wi bu ci sëñ Fallu wàccee ca bis booba yàlla suñu borom defal ko ngënee ngënee lu toll nii ak ay karaama yu ñu ko yàlla defal tey karaama yi day wane ni jaam bi def na li ko yàlla santoon ba yàlla defal ko ay teraanga kon it eh, ñu ci am am nañ ci bu baax a baax waaw suñu suñu xol tooy na ci waxtaan wi yaakaar naa bu ñu waxtaan nitu yàlla yi lii ci ñëpp séntu ci wax ay jikkoom nit ñi mën koo man koo rey waxit ngi ne li ko may jikko yooyu te mooy bëgg seen Tuuba ak liggéeyal ko kon it eh, am nañ mbégte lool ci waxtaan wi ñu ngi leen ñaanal comme ni ñu ko waxee woon ci njëlbeen gi rek eh, di leen gën a ñaanal bu baax suñu borom sàmm leen suñu borom defal leen tawfeex ci li ngeen di li ngeen di wut. waaw eh, suñu comme ni nga ko ñaanal it suñu borom dañuy wane léegi nit ñu baax ñi ñu baax ñi ngir yàlla suñu borom dañuy defal ay ay ay tawfeex kon ni nga ko ni nga ubbee woon rek jotaay bi ñu ngi ko tuddee min manaa fi rajab te yaakaar naa li nga ci li nga ci wax wax lépp ci ci mën a fekk dajam la bokk mm-hmm. ci euh, ngëneel yooyu nga xam ci lu yéeme lu kawe loolu nga xam ne suñ tubaa nee na yàlla jox na ko ko ci ci rajab mm. kon ñoo ngi ci ndokkeel di ci ndokkeel jullit ñëpp di sant yàlla bu baax di xam naa di leen jox dig daje ba beneen jotaay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu li xëyre dala nusku